على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب وموالاه بوك بوكي جلدي بوكي تالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سرين بنينا من لندنيو ين ngi غور di nuyu nuyoo ba gën a rafet te gën a sell te gën a matale diggante jullit ak moroomam jullitam neena na mi ngi rafet lu jataay bi lool di bég ci teewaay bi ak liggéey bi kon kenn ku ne ci yéen na xam ne sant na ko lool ndax nee na tamit seetlu na ne waxtu wu ne yéen a ngi xeñtu lu baax te di ko def te liggéey bii nga xam ne at mu jot ngeen yokk ci seen yitte ak seen pësteef wane na loolu waaye na ngeen xam ne lu ngeen ci sonn rekk jar na ko ndax ñi ñu koy defal lii rekk lañu leen mënal muy ñaanal leen te njariñ lu ñu ci xam nun ba di leen ko defal xam nañ ca ñoom lu ko ëpp fopp ba tax na moo leen gënal lu ñu leen mën a defal kon li ngeen def ci ay ñaan ba ngeen dalee waaj bés bii ba tey ay njariñ yu du jeex rek la ci ñoom muy salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam yi kaamil yi ngeen wàcce adkaar yi istixfaar yi ak qasaidi cheikhna alxadim yi dafa am ku bokk ci góor yàlla ya ñu koy wax malik ibnu dinaar rahimahullah malik moomu nag dafa amoon ab dëkkandoo bu jigéen bu ñëw ci moom benn bés ne ko man de sama doom ju jigéen dafa faatu biig nag dama gént ñu di ko mbugal mbugal mu tar lool ci bàmmeelam te jaaxle naa ci lool guddi ga ca topp Malik ibn Dinaar gént nekk ci jardin àjjana ya di dox ba mu yàgg as ndaw su rafet lool seen sol yére yu rafet takkaayu ba yéeme lool ci taar ñëw ne ko xam nga maam Malik ne ko déedéet yow yaay kan wala ci xurul ayni yi nga bokk ndaw si ne ko déedéet soxna sa ñëwoon démb ci yow di la jàmbat doomam ju sonn lool ca bàmmeelam man mii la la doon wax malik ne ko ah waye yow moom nu meuna nek lu la may martaba bu gaw bi ndaw si ne ko waju bax mo rombu armel yama nekkon def salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam juromi temeri yon yene ñu yol ba sunu borom jéggal ñafa tëddoon ñépp ci darajee salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam al imam al yafii rahimahullah netti na ne dafa am kenn ci awliya yi ku taxawoon ci wetu bàmmeelu ku ñuy door a rob ba woon ko gannaaw jenn jëmm ju yor melaw kalbu ñëw ne yomm ca biir bàmmeel ba ni si tuuti mu génnaat sonn lool di xëxët xëxët yu metti waliyu wi ne ko waa lu xew waa ji ne ko lu bon laa ko bëggaloon waaye sóoratu yaasin moo ma sonal ba gis nga ni mu fuqe sama benn bët bi ne ma am nga chance ba daawut jàng sóobtu tabaaraka nekkoon sa ñaari bët yépp ay fokk lii lépp ngir won leen rek ne njariñal ñaan yi ñu def dëgg-dëgg ump nañu sax waaye bokk yi bu ñuy ñaanal way dawlu yi rek di bañ a xalaataale ne du lu ñuy wéy rek di def bi ñu ko defee daaw ak bésu tey bi ñaata lañu fi jullee ci ay néew ñaata lañu fi ànd ci ay rob ñaata gone ñaata waxambaane ñaata mag ñaata góor ñaata jigéen ñépp di ay bokk yu ñu xamoon yu nekkoon ak nun fii di lekkandoo ko naanandoo ana kan moo ñu ci leeroon ne du fekkee tey ni nga gëmee li yàlla wax kullu nafsin daa'iqatul mawt ne kuy dund ku ne dinga nga dee na ko gëme li mu wax laa tatiku moo illa baxtatan ne dee moom yi dalay bett kon kañ la ak foo koy defee ak ci lum lay fekk lu la ump la ana kon kum ci leer ne du bokk ci ñu ñaanal déwén bokk yi kañ lay ñëw nu muy ñëwee mbetteelam ak wextanam lu mat a xalaat la mbokk mi waxtu woowu mu nay dikkal daañu jaarale fi sa kanam nodd gi nga déggoon lànk bañ a jóg julli ji mbokk mi ci waxtu woowu daañu jaarale fi sa kanam koor gi la waroon tanga lank bañ koo def mbokk mi ci waxtu woowu daañu jaarale fi sa kanam azaka ji la waroon tanga lank bañ koo génne mbokk mi ci waxtu woowu daañu jaarale fi sa kanam lu la sa waajur santoon te defoo ko mbokk mi ci waxtu woowu daañu jaarale fi sa kanam jëw gi nga jëwoon diw lu ñaaw li nga waxoon diw lu bon li nga tegoon ci deram mbokk mi bu boobaa daañu jaarale fi sa kanam alali jàmbur ji nga lekkoon te mayu la ko bu boobaa mbokk mi daañu la war rambaaj gi nga daa def bu boobaa mbokk mi daañu la woon teqale bokk gi nga nekke woon mbokk mi ci waxtu woowu daañu jaarale fi sa kanam li nga daan nëbbutu di ko def jàpp ne kenn gisu la mbokk mi ci waxtu woowu loo mas a def ci lu ñaaw dina la soof ba fa soof yam dina la naqari ba fa naqar yam ngay rëccu loo ko doon defee waaye kenn du la nangul sëg rëccu te dootoo dëpp kon bokk yi lu tee ñu wattandiku jëf yu ñaaw yooyu balaa waxtu woowu lu tee ñu rëcc te jéggul suñuy rëcc rëcc bi ñuy dund balaa waxtu woowu mbokk mi lu àddina neex neex wala mu yaatoo ko ci yow xamal na dee naqare na ko bàmmeel xate na ko sa waajur sa doom say bokk say xarit say àndandoo say dëkkandoo ñoo lay yeew ba nga ne ngodd génne la kër gi yóbbu la ci pax moo xam ne yaatuwaayam aggul sax ci genn wàllu meetar ñi la gën a jege ñoo lay sotti suuf ba kenn gisatu la ñu wan la gannaaw nga di leen dégg ñuy dem ña ngay dellu fa nga nekkoon ak ñoom sànq rek ci lu matul waxtu dellu nañ ca seeni bànneex di lekk ak naan di waxtaan ak ree nga ak rek mi digal la terale war koo lijjanti ak yow ëpp ñépp doole te ragalut kenn te lu mu wax def ko mbokk yu lutee kon ñuy dabu bànnee xam ci di jëfe ndigalam di moytu ay tereem balaa booba dina nu laaj julli juróom yim nu santoon dina nu laaj weeru koor wim nu woorloo woon dina nu laaj sunu alal ji matoon a génne asaka ndax génne nanu ko dina nu laaj aj makk gim nu man loo woon te dara teewunu ko def lu du suñ bakkan dina nu laaj nunu daa doxaleek sunuy waajur ndax war warmaaloon nañ leen ndax daanoon jëfe seen i ndigal dinañ nu nu defoon nag mbokk ndax daanañu ko jokk ndax daanañu sàmmi xàqam dinañu laaj ndax daanañu sàmmonteeg xàqi jullit ak moroomam xàqi dëkkandoo xàqi soxna xàqi borom kër xàqi njaboot xàqi jirim xàqi ki ñuy liggéeyloo xàqi ki koy liggéeyloo dina laaj taalibe bi xàq yi dox diggante digganteem ak sëriñam ndax daana jëfe ay ndigalam di moytu ay tereem waye dina laaj serigne bi tamit ndax daana digal talibé bi lu bax ta diko ci jitu ndax daana watandiko lo talibé bi afsafan ta diko watandiko mom tamit amul kenn kenn kenn kuy def mbir ba nga wax ko lu dunne ëlëk yàlla dina ko dina ko ciambar la lola yel lol ci pay muy lu rafet wala lu ñaaw yàlla jox lako ko ya'mal mithqala darratin khayran yara wa man ya'mal mithqala darratin sharran yara bokki ana lu te kon mu baye li nu nek ci jamono ji faw na di ko wax ngir delloo sa xel yi ndax dara warul ko lu dul ak réer réer gi jur ak càggante ak topp bakkan seetlu leen ni diine néewee ay taxaw jullit yi ñu di leen néewal doole di yàq seeni der bëgg àdduna topp bànneexu bakkan ak sàmm seen intérêt bopp kese tax na ñenn ci jullit yi ànd ak noonu lislaam bi ci loolu yenn kilifa yi war a àddu di seetaan noppi ci li ñu war a wax moo tax ku ne am fitu wax lu ko neex ak di def lu ko soof ak di def lu ko soob lenn ci kilifa yi yablu seen bopp ci jiital gu leen àdduna ak alali àdduna ak seen bakkan jiital ak ñàkk a doyloo seen borom nanuy bàyyi xel seenu njaboot ca seenu woy ëllëg ak bokk yi ak taalibe yi bootu ci ñoom te bokk na ci liy yolomal pas-pasu taalibe bi la leen yàlla boole digal moo ko sëriñam sëriñ bi war ko caa wommat du ca gis sëriñ ba bokk na ci li yolomal pas-pasu taalibe bi la leen yàlla maase tere moo ko sëriñam sëriñ bi war ko ko wattandikuloo ak di ko ci xaj bu xoolee gis na sëriñ baa nga cee xuus bu baax bu ma melee nii nag man bu ma melee nii nag man fa ñu koy waxtaanee ka jàmbat duma ko fekkee taalibe yi aju ci man ak samay bokk am ciw naqar lool te duñu ma ko mën a àgge kon noo ngi soññ sunu bopp tey soññi bokk yi nuy bàyyi xel ki tax nu dinu topp nuy bàyyi xel ki nu boole ki tax ñu dinu topp li nu sëriñ tubaa digal nu ji ci jiitu te di ci woo nit ñi lim nu tere nu di ko moytu te di ko wattandikuloo nit ñi nu fexe ba ko nu gis gën a naw sëriñ tubaa gën a xemmeem lislaam nu ñoŋal ab deram moom sëriñ tubaa ci di nekk ci li yàlla santaane nuy jiital li neex yàlla ci li neex nit ñi loo jóg di ko wuti ba mu teelaa def li neex yàlla ci loxol yàlla la nekk loo ragal di ko daw ba jàpp ne sa pexe pexey bopp mën na la caa musal ba mu teelaa doyloo yàlla ci noteelu yàlla la nekk lo meuna am ci aduna lu mu bari bari ba nga jàpp ne lu ne man nga ko bés dina ñëw nga teqalikoog moom mom ko meuna taxol te mbiri aduna rek tax ba nga jàpp ne lu ne manal nalako bés dina ñëw mu de bala fi ba nga de ba ko fi nga mujj nak ci loxo yàlla mi nga wonon ginaaw ana loy lay bu boba bokk yi ila allah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ta kullu shay'in halikun illa wajha ana kon lu tee nu wan gannaaw lépp te takkoog moom moom mi fi du jóg mbukk te ci moom lañuy mujj bokki julli yi bokki taalibe yi jikko yu rafet yi nu baaxoo woon mi ngi tum ci sunu jamono ji ana ngor ana jom ana fulla ak fayda koo digeel mu war la koo wóolu mu bett la koo ubbil sa bopp mu yàq la bëgg a dund ci ay pexe ak yi wuruj ajatuñu seen am am ci liggéey ajatuñu seen liggéey ci xam-xam ngir gis nañu ñu néewum njàng lool yor post yu kawe jiite ñu leen raw fopp ak ñu yor alal ju ne gàññ te seen liggéey mayu leen ko ba tax na kenn nangoo tuta sori ci njàng nit ñi léegi néew nañ fulla lool ba lu xew ñu ànd ca luñ leen woo ñu wuyu ca amatuñu ak dëggu lu ñu wax génn ca sànni sharia fële woon gannaaw seen diine umpale te duñu xam lu réeru nit ñi àgg na ci koo bokkulatum ngir mu def lam noon ko koo tu tariqa mu def lam non ba ag nañ sax ci ko koo tu serigne mu def lam non dañu wara xamne xam ne teqalikoo moo xam-xam ba waxon ne kullu mushkilatin waraaha almal wal jah jafe-jafe bu jullit yi am rek boko setantale li nga gis ne poñatum aduna ak dara aduna ñoko lal sunu borom mo nu gëna xam sunu bop ba tax na xamoon na ne bu nu ne waqtasimu bi hablillahi jamian tamit aduna man nañu tekkale motax nu artu nu nenu wala tafarraqu bu len teqali ko kon wala tafarraqu di feddali waatasimu bi hablillahi jamian dañu wax ne sharia lum la tere lu ne day fat yoon wa ci jëm kon bu nu suñ borom ne bu len xàjjali ko tere nañu tamit lépp luy sabab suñu xàjjali ko bokk na ci li sabab suñu teqali ko te yàlla wax lépp ci alquranu karim xébanté di ñaawalante di kokkalante يلا ترننكو يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم بوكنا سي سبب يوي دي اي بلنتي ولا دي وني سونو اي بي مروم يلا ترننكو ولا تلمزوا انفسكم فوفو صخ منو في دغني جوليت بي دا ورا جابي مرومم ني بوبام ندخ وخوت موم يلا لا يلمز بعضكم بعضا بوكو كين ديف مرومم وايي داني ولا تلمزوا انفسكم بولين كو ديف سين بوب كوني كون war a jàpp ne kuy sikkal moromam wala muy wone ayib bi moroomam boppam la ko def bokk na ci sabab yooyu ñaaw njort ci sunu moromum julit yàlla tere nañu ko ya ayuha alladina amanu ijtanibu kathiran min alwann inna bada alwanni ithmun bokk na ci sabab yooyu di lu ñutu sa mbiri morom waa moom lu muy liggéeyee fu mu jëlee alalam ji waa lu mu seqat diw kii xawma lu muy lijjanti waaye bés bu seen moroom ma jëm nii yàlla tere nañu ko wala tajassasu bokk na ci sabab yooyu di jëw sa mbokkum julit di yàqub deram di ko waxal lu ñaaw ak di ko sosal yàlla tere nanu ko bay méngale jëf jooju ak lekk sa yaramu morom wala yaxtab badukum badan ay yuhibbu ahadukum an yaakula lahma axiihi mayitan fa karihtumuhu kon bokk yi faw ñuy moytu yooyu yépp bu ñu bañee ak xàjjali ko waaye ngir sunu benno mën a am ta sax ta neex faw ñent yëf yi at taxaabubu wa taawun والتحاور والتزاور بجك بموي فاو ني بغنت سوبانت يينت جام صلى الله عليه وسلم نانا والله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه دا فا غينتي يالا ني كين تي يين غمم دو مات موك فيك بغل مروم ليمو بغل بوبام نياريل با موي ني ديمبلانتي تي لوي باخال سون تاي اك سون الك دي باña ديمبلانتي تي لوي سبب ميرم يالا te bokk na ci loolu di noonale ay bokki jullit wa taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala al ithmi wal udwan ñetteel ba mooy di diisoo di waxtaan di weccante xalaat ci luy rattaxal diggante yi ci luy dëgëral booloo gi ak bennoo gi ci luy defar su mbiri àddina ak àllaaxira lii bu amee ak déggoo am ak yëgante am bu boobaa daañu mën a yëkkateendoo di tegandoo ñeenteel ba mooy di demlante di nemmi konte di yëgante sallallahu alayhi wa sallam ne إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله له على مدرجته أي على طريقه ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها قال لا غير أني أحببته في الله فقال إني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه صلى الله عليه وسلم دنه dafa am waa ji doon ziyaare ji mbokkum jullitam ci beneen dëkk ba mu demee ba ca yoon wa yàlla yebal am malaayka bi mu ñëwee mu ne ko foo jëm ni waa ji ne ko dëkk bii rekk laa jëm ngir seeti sama mbokk malaaka mi ne ko ndax danga am looy sàkku ci moom waa ji ne ko déedéet dama ko bëgg rekk te yàlla tax malaaka mi ne ko yàlla moo may yónni ci yow ngir xamal la ne bëgg na la moom yàlla ni nga bëgg sa mbokk moom yi te jëmam ji rekk tax mbokki jullit yi mbokki taalibe yi serigne bi neena kon ci tënk nanu gor gor lu ci jaamu yàlla bu baax di baye xel de bammel ak bés pénc ba ñuy samonté ak xàq yi dox suñu digënté te gëna a bennal suñu bop tay moytu lu ñu xàjjale wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh